Sénégalais yëpp d'accord. accord nañ ci yaakaar naa ñëpp ñu fiy liggéey d' ci alors ba loolu moo waral président de la république jël tey décision tabaxaat hôpital Aristide Le Dantec donc euh, ci projet boobu la ñu nekk instant yii normalement tabax bi war na tàmbali euh, dans le courant du mois de septembre. bon man yooyu duma ci sori noonu li am solo daal mooy euh, hôpital bi jàpp nañ ne hôpital bu la. te japp nañ ni dañ ko wara tabaxat alors model hôpital bi ñu hôpital monobloc la monobloc moy benn bâtiment bo xamantene day jog ci kaw euh, bâtiment yi fi nek dañu tass ci biir hôpital bi presque matna, ñen fuk wala juroom fukki bâtiment benn bi nga tabax ko à gauche benn bi à droite benn bi ci kanam benn bi ci ginnaw Manam, bâtiment yi dañu tass ñu japp ne buñ leen regrouper xeyna duñu soxlaati 6 hectares Si vous demee dëkku tubaab yi da ngay gis superficie bu ndaw ñu l'hôpital. fa hôpital bu mag ndax day jóg ci kaw man mi visiter na dem na Maroc bu yagoul hôpital bi ñu Ibn Sina de Rabat ñom projet hôpitalu 30 étages 36 étages la ñu am donc euh, ma japp ne orientation bi autorité bi japp bi jël orientation bu baax la parce que orientation hôpital moderne la orientation hôpital performant la hôpital de niveau 4 euh, avons regroupé buñu regrouper les services dans ci bâtiment Nous avons 6 hectares Nous xam nga jamono ji fi ñu tollu crise bi def euh, xawa am doole ba nga xamantene de pexé bo mëna def rek ba wañu boru état rek yaakaar na pexé bo mën ko def dès lors que nous mëna tabax ci 3 hectares je pense que yenen 3 hectares yi nous utiliser pour financer une partie du projet loolu je pense que c'est un montage financier très pertinent. rendez-vous yi amul benn problème ñu bëri dañuy wax ne hôpital bi lañ koy tëj wante hôpital bi kenn tëju ko hôpital bi dañ koy toxal pendant la période de la reconstruction toxal bi buy toxu day toxu ak malade yi muy faj service yëpp ay toxu en attendant ñu tabax euh, tan nañ ci Dakar ay hôpital yu bëri yi nga xamante ne ñoo war a accueillir service yi toxu. Euh, ci ci hôpital yooyu euh, mun nañ ci ràññee hôpital Dalal Jàmm dina accueillir ay service yu bëri hôpital Fann dina accueillir ay service hôpital Abass Ndao dina accueillir ay service hôpital militaire bu Wokam dina accueillir ay services hôpital institut d'hygiène sociale dina accueillir ay services centre de santé yi fi nekk yëpp danañ accueillir ay services donc euh, services yooyu bu ñuy taxu bi bi ngeen dugg sànq gis ngeen benn camion camion bi ay lala ci nekk ak ay matelas xam nga fu mu jëm abbas ndaw donc service buy toxu day toxu ak équipement am toxu ak personnel am yóbbaale activité am mais yóbbaale aussi malade yi nga xamante ne ñoom la doon suivre donc euh, rendez-vous malade yi dañ koy continuer par exemple yow mii di wax ak man fekkoon da nga am fii rendez-vous talaata talaata bu jotee doo ñëw fii da nga may fekk abbas ndaw par exemple wala nga fekk ma dalal jàmm wala nga fekk ma fan wala nga fekk ma hôpital général de Grand Yoff parce que malade bu ne ñu ngi ak dossier te dossier bi dafa am téléphone am lépp ñu ñoo lay woo ne la Moussa Diallo parce que man séeréer laa dama yàpp tukulóor yi Moussa Diallo sa rendez-vous bi de alxames la wante service bi actuellement nekkatul hôpital Le Dantec service baa ngi dalal jàmm donc fekk ñu dalal jàmm bu ko defee ñu mën a saytu sa wërgu yaram donc noonu lay demee donc malaat bu ne bi fi daan fajoo bu nekk bu service bi toxoo dafay continuer di fekk service bi fu mu taxu buñ tabaxé ba pare nak comme que dañu taxu ñu délu si suñu kër. ñi def wàllu jalis ñu ngi leen di tabaxal ñu ngi leen di installer fi ñi dem ñom dañuy continuer sen jalis ba fi ñi dem pare su paré nak ñu soog taxu xeyna mën nañu baña dem sax ci weekend bi parce que centre bi leen di tabaxal normalement semaine prochaine la wara paré pare pas tabax mais di installer bu paré ñu ñu soga dem fofu il en est de même que pour yenn malade yi nga xamanteni dañ am ay cancer ak yoyu ñoom aussi seen faj bi day continuer di nous ba keroog ñuy am fi Nous leen di yóbbu ñu mun a dem foofu wëyal seen euh, seen faju. ouverture en fait ouvrage bi 18 mois lay durer a ba ba fin dans 18 mois war nañ un hôpital clé à main donc 18 mois normalement daal li ñu prévoir décembre 2023. war nañoo commencé di ñibbi suñu kër suñu kër gu bees bi dàq ci dàq ci Afrique dàq ci Afrique gën a performant nag ci Afrique. non loolu amul solo loolu amul solo parce que service yi tëjul taxu la rek mu ngi mel ni nga jóge ci point A dem ci point B li nga mën def point A mën nga ko def ci point B bi loolu amul benn problème loolu sóor nañ ko li liñ liñ liñ doon faj fii ci Dantec service par boo jëlee service médecine interne li mu doon faj Dantec fu muy tax bu demee foofu loolu lay faj donc malade yi am grippe doon ñëw fii au lieu ñu ñëw fii dañuy dem fekk ko feneen fu muy taxu donc loolu amul ci sa loolu yëpp sóoraale nañ ko loolu amul problème xam nga xam nga centre boo dem am na ay lal lal yooyu dañ ciy yokk suñu bos boo génnee fii am na camion bi nga gis mu gaare ay lal a nekk ci biir ak mat la lal yooyu dañuy fekk yeneen lal lal yooyu di dem dañuy fekk yeneen lal donc ñun dañuy yokki service yi ñuy fekk bu ko defee prise en charge bi du am défaut capacité bi fi am moom la ñuy transférer ci lu mat juróom benn hôpital yi ne Dakar ak ci centre de santé yi ñoom ñooy absorber la capacité litière de l'hôpital Aristide Le Dantec bu ko defee malade yi doon faj fii yi doon faju fii ñu mën continuer di wéyal seen faju bi ci structure yooyu non de façon très claire mënuma ci addu parce que 3 hectares yooyu damagul xam nga chantier boo ko bâtiment bi puisque ñun dañu bëgg tabax bi gaaw 3 hectares yi ngeen ñuy wax ne moom la ñuy jaay fa la ñuy installer centrale à béton yi xam nga léegi tabax yu tabax yu léegi li ci ëpp amatul ay biir dañuy couler rek donc espace boobu moom lañ war nañ installer foofu trois centrales à béton installer fa camion yeeg matière première yi ñuy utiliser pour tabax bi ak yooyu donc euh, loolu lay loolu loolu lay loolu la ñuy jëriñ ci pendant la période de la reconstruction mais njaay meeg yooyu man. Euh, du ñun lañ ko confier du hôpital lañ ko confier loolu beneen kuréel lañ ko confier moo tax ñun mënuñ ci àddu voilà. Euh, non xam nga am nañu ne dañ xam nga ñu bëri dañ jàpp ne dañoo tëj Dantec ma wax ne Dantec kenn tëju ko dañ koo toxal pour tabaxaat ko toxal pour tabaxaat loolu moom moo am. waaw dañ koy toxal dañu toxal service yi ci yeneen structure hospitalière yi pour mun a libérer espace bi kii tabax mun a ñëw tabax parce que ay bâtiment ñoo fi nekk munoo tabax ci kaw ay bâtiment il faut ñu nekk ci biir bâtiment yi génn ñu ñëw toj nettoyer terrain bi teg seen plan nag commencé tabax donc loolu la Mm-hmm. non dañ leen nañu dem nañu dem déglu dañ leen nañu dem déglu déglu mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo yore seen dossier xam seen jour rendez-vous ñun ñu leen di woo ne la Moussa Diallo am nga rendez-vous jour tel na nga préparé jour tel fii ngay ñëw foofu mooy doon sa sa rendez-vous mais loolu sax sóoraale nañ ko parce que pendant la construction am nañ le bureau bu ñu tuddee le bureau des usagers boobu dañ fexe ñu am fi koy organiser fii ci biir hôpital bi benn euh, espace bu yem rek pendant les deux trois quatre premiers mois du chantier nga xam ne xëy na du ñàkk suñu mbokk yi jóge Fuuta sama mbokk tukulóor yi yi nga xamante ne xëy na yëguñu ne Dantec dem na il se pourrait que mu am ku ñu référé fii au lieu que mu laajte mu jubal si fii bu ñu mel noonu ñëwee dana fi fekk kenn koo xamante ne moo koy mën a guider ñu ngi aussi mettre en place benn numéro vert ba nga xamante ne ku nekk mun nga di ci woote soo soxlaa rek boo woowee ñu ne par boo amee problème bët nga woote dañ la ne problème ophtalmo kat mu ngi dalal jàmm wala mu ngi ogive wala mu ngi béréb sàngam nga dem mu leen fekk foofu bureau mais mais mais consulté nañ ko non day wax rek day wax rek fii urgence moom boo demee boo demee service ba dañ lay jël en charge fi arrêté wuñu benn benn benn yoon prise en charge maladie ci

ak yu yuñ fa fekk. non yooyu bu demee boo demee ci hôpital da ngay conformé wu ci euh, réglementation bu hôpital boobu seen seen maanaam yi seen euh, yoon yu ñu rëdd pour doxal seen hôpital bi mais hôpital yooyu ñu dañuy bind ak dañuy def ak ñoom convention de partenariat par exemple boo nekkee contractuel dantek ñu yóbbu la dalal jàmm dalal jàmm du la mën a fay dantek moo continuer di lay fay mais dañuy dantek ak dalal jàmm dañuy signé benn convention de partenariat buy permettre dantek continuer di fay agent yi nekk foofu mais ñoom dañuy liggéey pour dalal jàmm mais payoor bi ak yooyu salaire yeeg yooyu ñun ñooy continuer di ko fay parce que ñun suñuy agent lañu quoi loolu lañ koy def pour bañ leen a perdre après quoi pour que bu ñibbisi jotee ñibbisi bi daal di yomb. <laughs> envoyé nañ ma benn message démb prise kii euh, pavillon spécial ñooñu voilà ñooñu ce qu'ils vont faire c'est d'avoir euh, ñoom dañ leen di wax ñu renforcer fan yëpp ñu ngi may woo nag wax dëgg yàlla pour ma wax leen li ñu war a def mais li ma jàpp ne la ñu war a def puisque pavillon mënuñu ko toxal dañu wut ay ambulance yu bëri rek. képp koo xamante ne war nañ saytu sa wërgu yaram service ba ko war a saytu nga dem fekk ko foofu buñ ko saytoo ba pare nga dellu si parce que ñoom hmm? waaw xam nga ñooñu moom ñun dañ leen a héberger rek ñoom bokkuñu ci hôpital pavillon spécial la mais bokkuñu ci hôpital bi donc ñoom ñun ñun ni ñuy taxaw ñoom mënuñoo taxaw noonu ndax malade yi bokkul condition d'hospitalisation yi du benn wante comme que ñun soriwuñu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 xamna suis trop ba mënuma bu di Dakar instant je ngi dama suivre si page page YouTube Dal. Dakar instant mon bo xolé ñom sen tour rek day chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire. lo wax ci Dakar instant. c'est une première.